laa ngi fii ci buntu kër sëñ Mbacke te sëñ Ngunda Fall xalifa Cheikh Bésu Fall alxuraan teewal leen fi di kilifa kër gi di jëwriñu kër gi ñu fas yéene waxtaan ak moom ci lu jëm ci bis bi ci ni nu ko gisee. ci dayo dayo bis bi ak nan lañ ko waajalee ba yegg si fii sëñ bi ñu ngi siyaar bu baax a baax Fall Ndiaga. ñu ngi lay ñu ngi siyaar ñaan suñu borom defal ñu ndam yu yaatu. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. ñoo ngi tàmbalee nuyoo bi ci Cheikh Mahamadul Muntaxa di ñaan suñu borom bàyyi ko mu yàgg fi lool ba naalim naal yëpp mu àggale ko te ànd ko murid yëpp. sant yi ci liggéey bi nga xam ne dañu koy liggéeyloo noo ngi sant bu baax. sant Cheikh moom am di Modou Mbenda mi nga xam ne moo fi nekkal maam Cheikh Rahima Fall ak njabootu maam Cheikh Rahima Fall gépp ak njaboot gépp rek te xamal ne suñu xol seet na baax sunu xel gën naa dal ndax ab Baye Fall moom lii rek lii nu suñ Muntaxaa di liggéeyloo kat moom mooy sunu lépp ñun ci ndigal ci la ñuy amee lépp ci la ñuy roote lu ñu am ci lañ koy amee waaye lu ñu amee ci jëfe ndigal ak bàyyi ay tere ci lañ koy am waaye lu ñuy ñàkke ci ñàkk ko jëfe ci lañ koy ñàkke kon ñoo ngi sant Cheikh Mamadou Mountakha mi nga xam ne fàttiwul loolu ba wëlbati ko waat waxtu wu ne mu ànd koog noonu kon ñoo ngi sant bu baax di sant it bokki taalib yi ak njabootu Cheikh Rafal gépp nag. la ilaha illallah la